Ousmane Diagne di ministre de la justice doonoon procureur ci réewum Sénégal ku ne xam ci djup ak xam-xam bu bari bi ko sunu borom denk ak ragal yalla ak maandu te bi nga xamantene dina ko am sa su nek bu nek ci bir procès taxna président du Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak premier ministre Ousmane Sonko daal di koy tabb mu doon ministre de la justice démb nag moo doonoon njëlbéen nag muy jàkkaarloo wala muy jàkkaarloo askanu Sénégal ngir rek wax ci réforme bi nga xamante ne des na ko amal le 28 mai bi fexe ba justice bi tëddee njaaxaanaay doon ndeyi seex waaye doon ko xam par parlo waye dina fexé ba sénégalais bu né ak fo mëna nek ci làkk boy làkk mo xam mo xam wolof mo xam séeréer mo xam djola mo xam mandingue mo xam làkk yi nga xam di xam nañ leen ci réewum Sénégal nga nek ci réewum Sénégal kenn ku ci nek ñu traité la de même façon ñëpp ndax nak Sénégal ñun ñëpp benn bopp la kenn mënu ko xam justice bi dafa wara a tëddee njaaxaanaay waaye justice boobee nak wax na nouvelle bu am solo ci ñi nga xamante rapport daf leen épinglé du moins ñooñee nañu xaar ne des na initier ay poursuite maanaam des na topp yoon jël maanaam dossiers yooyu dénku ay magistrats yu indépendante yoo xam ne faruñu fenn waaye yu am xam-xam te ragal yàlla te maandu ñu daal di def ay poursuite manam top képp koo xamante rapport épinglé na moo xam koo mën a doon ak foo nekk waaye koo xam ne daal nañ la moom wax na ne loolu munta ñàkk ndax bu wax rapport la waral rapport mooy bu ñu gisee loo xam ne na leerul justice daal di def liggéeyam topp ba yoon yoonal yoon ba sénégalais bu nekk xam mbir yi fu muy mujjee képp ku jàppoon président Basir Diomaye Diakhar Faye ak premier ministre Ousmane Sonko la ñu daj ci justice dañuy bàyyi justice anarchie bi fi nekkoon doole crasi bi Macky Sall sampoon waaye tamit justice bi à deux vitesses bi fi nekkoon nga xam ne kenn du sañ a wax ñu jàpp ne noonu dañ koy bàyyi laisser aller ko ndax ngeen seen bopp ndax ñi justice ci boppam bu Sénégal moo leen teg injustice ba tey jii président Basir Diomaye Diakhar Faye ak premier ministre Ousmane Sonko accéder au pouvoir injustice bobu ñu leen teg teg ko seeni morom teg ay ndaw yo xamne di leen faat te teguñ ko fenn ci ay manifestation yu doon doxal yooyee tamit bu fekke ne jàpp nañ ne dañ koy laisser aller manam sénégalais xamuñu bu baax fi Ousmane Sonko bëgg jëmele askan bi ak président Bassir Diomaye Diakhar benen bi ci dess moy justice bobé nga xamantene dañ ko yaakaaroon li fi faatu ci ay nit liñ fi ray ci ay nit liñ fi yàqal ci ay nit loolee lépp faw ñu tegaat ko ci yoon moo tax sax ñu ngi wax ceeb wàññi diwlin appart euh, location yooyu yëpp am na solo waaye demande social bi ñëpp gën a bëgg di ko xaaree président bu bees bi ak premier ministre mooy juste def liggéey ba ñi doon rey di sàkkal pexe nit ñi di leen bunduxataal di leen tëj illégalement ñooñee ci boppam justice bii ñuy xaar defaat ay réformes yu bees justice boobu te dee njaaxaanaay doon ndey seex waaye fexe ba ñu doon euh, fexeel nit ñi ci lu tegul benn yoon ñoom justice bi jaar ci ñoom ci yoon woo xam ne dañ ko réformé waat nga xam ne kenn du wax dañ maa tooñ dañ maa ëpp loolu nag bu amee ci réewum Sénégal yi yëpp yam benn pied d'égalité